waaw mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci am néegam di fas yéene jël benn bind ci loo xam ne dafa aju ci suñuy wàllu diine ñu koy tuddee fiq di ci sukkandikoo téere bi di minhajul muslim bu cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah di fàttali ne suñu talaatay tey ji suñu dimanche tey ji moom mooy fukkeelu fan ak ñaar ca la nga xamee ne nii mooy weeru rajab ci mille quatre cent quarante trois xam naa du ñàkk ñu jot ay message di waññe ne loolu ayaamul biid yi mi ngi commencé kon suba di fukk ak ñett am na nag ñoo xam ne ñoom ñu ngi naan talaata lay commencé nañu xam ne loolu mbokk juyooga fam cosaanoo dafa yàgg ndax dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne commencement weer duñ ko mën a saxal lu dul dafa feeñ ci sous région bi nga xam ne moom la ñu nekk mooy Sénégal ak dëkk yi ko wër ñooñu ñoo jàpp ne talaata mooy doon le quinze le treize amma bu dee ñi jàpp ne weer yi fu mu feeñ dañ caa war a tënku ñoom ñoo jàpp ni kon tey mooy douze suba mooy treize donte ne ñoom ñëpp la ñu jàpp ñoo ngi ko teg ci tegtal yoo xam ne moo leen doy lépp lu ca nit jàpp rek incha allah dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ko ñi ngi tolloon ci la nga xam ne mooy téereb zakat ba yëgsi woon ci la ñuy tuddee zakatul baqar mooy azakay nu ñuy génnee azakay nag waaw mooy naka la ñuy génnee azakay nag loole mi ngi noonu ci ban page lañ toll ko waaw ci deux cent quarante bi bu dee ñu yor mool bu bees bi mooy albaqar mooy ci ñaareelu poñ bi albaqar waaw ala kulli xaal mbokk lii ñu dal mooy buntu zakat jullit dafay xam ne diine ji bokk na lu suñu borom wax ne nit ñi day ba ñu nangoo tuub taxawal julli génn zakat seen doomi ndey lañ ci diine suñu borom mu ni ña nga xam ne ñoo gëm di taxawal julli di joxe zakat zalika diinul qayima ca mooy liñ doon jàng sànq diine bu amul julli du diine diine bu amul zakat du diine looloo tax ku ne jullit nga ca doo génn zakat bu fi loi l'islam nekkoon dañ koy jël ci yow par force soo xeexee ñu xeex ak yow moom la borom bi ni fa in taabu wa aqamu salaa wa atu zaka fa xallu sabilahum suñ nangoo julli nangoo joxe azaka nañ leen bàyyi suñ ko nangul yi dañuy xeex ak ñoom zakat boobu mu am lu ci xam ne alalu biir la te mooy xaalis bi ak or bi loole fokk mu am ci yow at nga am nisaab nisaab boobu day varier ci at yi nisaab bi day varier ci réew yi ba nga xamee ni jamono yi paase bokk na lu ñu doon tënk nisaabu zakat Sénégal day tourner ay autour de trois cent trois cent vingt cinq mille francs loole bu dee yàlla wërsëgal na nga denc ko ren ba déwén da nga koy xaaj ñeen fukki xaaj benn ba ngay génn zakat ñu dem ci zakatu jur gi lan ci mujjoon jàng mooy giléem giléem kiy génn zakat mooy ki am juróomi giléem benn xar lay génne ki am fukk ñaari xar fukk ak juróom ñetti xar ñaar fukki giléem ñeenti xar soo demee ba am ñaar fukk ak juróom ca ngay doog a génne benn giléem boo xam ne nii mi ngi noonu yaay détails yi jàngoon nañ ko dimanche passé ñu ñëw jël tey li nga xam ne mooy albaqar mooy nag mu ne chartul baqari l xawlu wan nisaabu kal ibil chart ba ñuy génne zakat ci nag mooy nag yi dénk denc nga leen atum yàlla ca it mat na nisaab comme nañ koy waxe woon ci giléem ya wa nisaabuha salaasuuna rasan min al baqar lan mooy nisaabu nag mooy kii am na fanweeri nag denc ko ren ba déwén da caa war a génne zakat wal waa wal waajibu fiiha su boobaa lan mooy war ci fanweeri nag tabiun aw fassana mooy day génne benn sëll woo xam ne am na at bu mat sëkk ki am fanweer loolu lay génne ki am fanweer ak benn juróom juróom benn fanweer ak juróom ñeent du tey ñooyam lu ñuy génne mooy sëll wu am at fa ida balagat arbain fa fihima musinna aw fat sanatayni te mooy su demee ba am ñeent fukki nag nag su boobaa day génne nag boo xam ne am na ñaari at fa ida zaadat fa fi kulli arbaina musinna wa fi kulli salaasina ajil su ëppee loolu léegi dañuy xool fu ñu compté trente nag dañ leen génneel nag bu am at bu dee compté nañ quarante quarante nag ñu génne leen nag bu am ñaari at li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli salaasina tabiun bépp fanweeri nag dañ ko génneel sël wu am at wa fi kulli arbaina musinna bépp ñeen fukk ñu génneel ko boo xam ne tegale na ñaari at la ngay jëkk a xam mbokk zakaatu xaalis soo xisee ba am nisaab lépp lu ci tegu dañ koy compter ci zakat bi dañ koy génneel zakat masalan tey bu ñu noon nisaabu zakat quatre cent mille la ki am quatre cent mille day génne dix mille waaw léegi nag bu dee dafa am quatre cent quarante mille su boobaa dañ naan quarante mille dañ koy génneel zakat muy mille franc day génne onze mille franc amma buñ demee ci zakatu jur zakatu jur moom nisab bi diggante ay nisab kenn du ko génneel zakat looloo tax ki am fanweeri nag lu ca tegu fii matul ñeen fukk mook ka am fanweer ñoo yem comme ni ñu ko waxee sànq lu mel noonu lañ lay wax ci ñetteelu point bi boo koy jàng mu ne alxanam alxanam mooy li wolof ñu tuddee gàtt ab gàtt gàtt day ëmb xar ak bëy alxanam hiya da'nu wal maaz moom mooy xar ak bëy fi kulli naam mooy wa shurutuha alxawlu wa an tabluga nisaaban su boobaa moom it nit ki am nay xar rek du tax zakat war ko fokk ñaar daje ca am na nisaab denc na ko at wa nisaabuha arbauna rasan wa fiha shaatun jaz'a heure boo xamee ni nit ki am na ñeen fukki gàtt na doon gàtt ya da doon fanweeri béy fukki xar ñaar fukki xar ñaar fukki béy ak juróom fukki xar ak juróom buñ dajalee lam am ci xar ki bëy buñ ko compté dana man ñeen fukk denc na ko ren ba déwén day indi la nga xam ne mooy jazaa jazaa nag lu ci bëri ci borom xam-xam lañ koy firi mooy xar mu am at xar mu am at mi ngi noonu fa ida balagat miatan wa ihdina wa ihda wa ishrin fa fiha shatan suñu demee bam nekk téeméer ak ñaar fukk ak benn lay doog a génne ñaari xar su ko defee mbokk nañu xam ni diini lislaam mooy diine dégg naa topp naa mais xel du ko juger xoolal ki am ñeent fukki xar ñu ne ko lay sa zakat benn xar ki am quarante ki am quatre-vingts benn xar ki am cent benn xar ki am cent vingt benn xar quarante ba cent vingt ñoo yem lu ñuy génnee zakat benn xar amma bu demee ba nekk cent vingt et un teg na benn xar rek ñu ne ko ah kon léegi ñaari xar ngay génne gis ngeen loolu xikma borom bi la lu tax mu tërale ko noonu gannaaw ba fa ida balagat miatayni wa waxida fa aksar fa fihama salaasu chia donte de ki am ñaar fukki xar ak benn ñu ne ko yow ñaari xar ngay génn moo ne ki am téeméer ak ñaar fukk ak ak juróom fukk même chose ki am ñaari téeméeri xar même chose ñaari xar rek lay génne amma ñaari téeméeri bu tegee benn xar ñu ne ko ah kon léegi yow da ngay génne ñetti xar yi ngeen noonu da ngay génne ñetti xar fa ida zaadat ala salaasa miya fa fi kulli miatin shaat li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fa ida zaadat fa fi kulli miatin shaat su ñu demee nag ba gileem ya doon gileem yu bare bari doon ah ah waaw subhanallah naam bu demee ba gàtt yi bëri ba nekk ay téeméer téeméer su boobaa dañ naan téeméer bu ne dañ koy génneel ab gàttam ñetti téeméer ñetti gàtt ñeenti téeméer ñeenti gàtt waaye xamal au départ ne zakatu xar ak béy quarante la commencé benn gàtt la gàtt boobu mooy valable ba cent vingt benn gàtt la cent vingt et un deux gàtt ba deux cent deux gàtt suñ demee deux cent un ñu doog indi trois gàtt ci ci xar loolu mi ngi noonu diggante bi kenn du ko génneel ay zakat mu ne mi ngi lay indil ñaari leeral mooy tanbihat ñaari leeral ishtarata al jumhur al sawm fi al an'am mu ne la nga xamee ne mooy ak caawoo mooy sàmm ca àll ba la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne jur gi moom kenn du ci génneel zakat lu dul mu nekk lu ñuy sàmm wa hiya an tara al maashiya aksara sanatin fi l ushbi l aam fi l fala ca mooy jur ga di lekk la ëpp ci at mi ca la nga xam ne mooy ñax mañ jagleel àll ba ñëpp bokk ko mu nekk ci àll ba ñëpp bokk ko loolee la ñuy tuddee ak caawo mooy ay lu ñuy sàmm la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne kon ki yor ay xaram ci këram ay gileemam ci këram ay nagam ci këram kooku zakat waru ko fokk muy génn di ko sàmm te àll ba zakat doo ko war mu ne nag waaye walam yashtarituhu fi wujubi zaka imaamu malik rahimahullah wa huwa amalu ahlul madina mu ne waaye ku mel ne malik day ak borom xam-xami madina yi ñoom dañ ne génn zakat chartuwuñ ci ne gàtt yi fokk ñu génne di sàmm ca àll ba pour ñoom ku am ñeen fukki xar wala nga am fanweeri nag même boo ko yoree sa kër da nga caa war a génn zakat wa xujjatul jumhur lan mooy layu la ëpp ci borom xam-xam yi mooy qawlu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa fi saa'imatil ghanam yonent bi nee na ca la ñuy sàmm ca gàtt ya iza kaanat arba'in su demee ba mat ñeen fukk fa fiha shaat da cay war ab gàtt ila ishrina wa mi'a ba ba muy nekk téeméer ak ñaar fukki gàtt fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fa fi saa'imatil ghanam la yonent bi ne la ñuy sàmm ca gàtt ya intaza minhul jumhur ca la ñu jëlee la ëpp ci borom xam-xam yi dalilu ishtiraati sawm fi zakati al an'am tegtal ci ne bala ñoo génn zakat ca jurgo fokk day la ñuy sàmm ca àll ba mi ngi noonu fi zakati al an'am al ghanam bi nas ci texte boo xam ne yonent bi moo ko wax wa fil ibil wal baqar bil qiyaas ala al ghanam gannaaw ba nag gileem ya ak ak nag yee tamit ñu ne maadaama yonent bi nee na bala ñoo génne zakat ca gàtt ya day fekk lu ñuy sàmm loolu it la ñuy jàpp ci gileem ya ak nag ya wa qaalu inna fi mashaqati al-ilf wa kulfatihi ma yaj'alu qayyid bi sawmi mu- mu'tabara ñu ne coono ba nga xamee ne ni nit ki da koy yor ay gàttam ci këram di leen sàmm di leen xont loolu bokk la kay yeewu ay gàttam rek di dem ci àll ba kon fokk ñu bàyyi ci xel sàmm googee almuhim mbokk loolu ay ixtilaaf la doonte ne jàpp naa ne waa jàkka ji moom ci am ay giléemi ki xar bëriwut waaye ci gàttal ixtilaaf la ci borom xam-xam ndax ay jur ki nga xam ne daa garde ay jur këram di leen di leen xont ndax kooku zakat war na ko lu ëpp ci borom xam-xam dañ ne zakat waru ko allahuma lu dul imaamu malik moom nee na zakat war na ko su ko defee it mbokk comme yàlla lam ñu laaj ci zakat bëriwul te waaye yàlla may li ñeen fukki xar yoo denc ren ba déwén mën a jël ci benn jox fuqaraawu yi loolee moom wax dëgg yàlla la xel nangu mooy julit def lu mel noonu ngir mucc ci ixtilaaf bi am ci loolu loolu kon moo aju ci un leeral gu njëkk bi suñ demee ci ñaareelu leeral bi mu ne la zakata fi l awqaas min kulli l an'am la nga xam ne mooy nekk ci diggante ñaari nisaab yi loolee kenn du ci génne zakat wal waqs ma bayna faridatayni ca loolu moom mooy la nekk ci diggante ñaari farata yi fa lazi yamliku arbaina sha ki amoon ñeent fukki gàtt tajibu alayha sha benn gàtt moo ko war illa an tabluga miatan wa ishrin ba baa muy am téeméer ñaar fukk mi ngi noonu ca comme niñ koy waxe woon ci njëlbeen zakatu xaalis soo xisee ba am nisaab dërëm bu ci tegu du tey dañ koy calculer génne ko zakat amma zakatu jur nisaab bi dafa am ay farata farata yu tegaloo bu dee ne xar yee kii xis ba am ñeent fukki xar ba baa muy am téeméeri xar ak ñaar fukki xar su boobaa ñeent fukki xar yee mooy yooyu ab gàtt juróom ñetti fukki xar yi te tegu yépp kenn du ko génneel zakka xanaa lu dul mu dem ba teg benn xar ñu doog a génne zakka moo tax mu ne fa ida zaadat waxida wajaba alayha fiha shaatayni suñ demee ba téeméeri ñaar fukk yi teg benn gàtt mu war ko nag ñaari gàtt fal adadu bayna al arbain wal mia wal ishrun yusamma waqsa la nga xam ne mooy lim bi nekk diggante ñeent fukk ba téeméer ak ñaar fukk moom la ñuy tuddee ak ak ak ak ak diggu doomu ak digg ba nga xamee ne lu moom la zakat fiihi zakat du ca war wa hakaza fi l awqaas lu mel ni nit la ñuy wax ca li ñuy tuddee awqaasul ibil wal baqar ci bépp lim bu nekk diggante gilem yaag xar nag ya lu mel noonu lañ ca wax wa zalika li anna nabia sallallahu alayhi wa sallam lamma zakara faraid al an'am yonent bi ba mu demee ba tudd faratay jur gi kaana yaqul ida balagat kaza fa fiha kaza boo zakat ba matee nangam lii moo ca war fa ulima anna al adada bayna al faridatayn la zakata fihi te loolu la ñu xamee ne diggante ñaari faratay zakat du ca am mi ngi noonu soo ñëwee ci ñetteelu point bi mu ne yu damm fi zakat ad danu ila al maaz li annahuma jinsun waaxid heure bu ñuy génne zakat dañuy boole xar yi ak bëy ya la ñuy boole wàññi xar yi ak bëy ya la ñuy boole wàññi ndax ñoom benn giir lañu wa kaza kaza al jawaamisu ila al baqra ila al baqra mooy li ñuy tuddee ay buffle ak ay nag yooyu yëpp dañ koy boole wal iblul arab ilal buxtu mooy giléem yi nga xam ne giléemi arab yi nga xam ne day am ñaari bos ñaari jigéen am yoo xam ne benn la ñuy am moom lu tubaab di wax chameau ak dromadaire mi ngi noonu mooy am na giléem yoo xam ne benn bos rek la ñuy am ci kaw am yoo xam ñaar la ñuy am yooyu yëpp ñoo bokk benn giir li shumuli lafzil jinsi laha fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ngir la mu ëmb la nga xam ne mooy giir gañ bokk ca waxe yonente ba fa fi saaimatil ghanam ida kaanat arbain fa fiha sha yonent bi nee na lépp lu ñu sàmm ca gàtt ya su matee ñeen fukk nañ ca génneb gàtt wa qawlihi fi kulli xamsin zawdin sha ci juróomi giléem yépp dañ cay génne benn gàtt wa qawlihi fi kulli salaasina min al baqr tabia ak bépp fanweer ci ay nag nañ ca génnee sëll woo xam ne am naat loolu mooy ñetteelu mbir bi mu am ñeenteelu mbir mooy ñoo xam ne dañoo boole seenug jur ñooñu naka la seen zakkat di deme alxalitaani ida kaana kullun minhuma yamliku nisaaban ña nga xamee ni nii dañoo boole seenug jur su dee képp ci ñoom daa am nisaab wattaxada raiyahuma wa mar'ahuma mu daa di nekk doon benn keneen di sàmm ak fañ leen di sàmm mi ngi noonu ak la nga xam ne nii mooy mar'ahuma fa nga xamee ni nii fa la ñuy dal di fa noppaloo ji wa mi wa mubi mabitahuma ak fa ñuy fanaan su dee jur gi ñoo ànd ci loolu lépp tuuxazu zakatu anhuma mujtamiin su boobaa jur gi dañ koy jël zakatam en tant que jur kenn du ko jël en tant que ñi ko moom masalan tey boo amul ñeent fukki xar zakat waru la waaye tey ñetti nit bu ñu àndoon kii am na moom fanweeri xar ak juróom kee fanweeri xar ak juróom kee fanweeri xar ak juróom loolu lépp du tey bu ñu dajalee zakkaat yooyee da ngay gis ne dañuy xool xar yi en tant que xar jël ko ci la nga xamee ne nii mooy nit ñi booloo mais duñu xool ne kii moom moom lii wala kii moom moom lii suma huma yataraddaani bi sawiya gannaaw ba nag ñoom ñu daal di dellonte ci ak yemoo fa ida kaana li ahadihima masalan arbauna shahr su dee kenn ca borom xar ya daa am ñeen fukki xar walil axiri samaanuun keneen ko am juróom ñetti fukki xar wa uqiza wa aqaza saai shaatan min chiyaai saahibil arbain kay dajale zakat jël benn gàtt ca borom ñeen fukki ya radda saahibu samaanina sulusay shaa ala saahibil arbain su boobaa da ngay gis ne ka amoon juróom ñetti fukki xar day delloo njëgu deux ceeru xar man jël ci borom ñeen fukk yi loolu tax ba hada wala yajuuzu aljamu bayna alganamayni almutafarriqayni haruban min azaka du dagan mukkit ñu dajale suñuy xar ngir daw zakat masalan am naa ñeen fukki xar mi ngi noonu kii am ñeen fukki xar kii am ñeen fukki xar suñ ko boolee di cent vingt xar la day waa ji jël zakat su ñëwoon fekk xar yi booloo benn xar rek lay jël amma bu doon ku nekk daa beral su ñeen fukki xar fu ne dañ fay jël xar mu ñetti xar waaye buñ ko boolee benn xar rek la am droit jël ko ci moo tax mu ne kenn du dajale zakat ngi kenn du dajale ak jur ngir daw zakat wala tufarriquhu almujtamiin kazalik mu ne it kenn du teqale loo xamee ni nii dafa dajaloo woon ngir daw ca la nga xam ne moom mooy zakat masalan tey wax nañ ci am deux cent un xar dafa war a génn ñetti xar ñetti xar léegi waa ji jël si zakat mi ngi ñëw ñu daal di jël xar yi séddale ko def fii cent def fii cent cent un su boobaa ñaari xar rek lay jël looloo tax kenn du teqale ngir daw zakat kenn du dajale ngir daw zakat lama jaa fi kitaabi abu bakarin siddiq radiallahu anhu abu bakar daana bind nit ñi di leen wax wala yujmau bayna bayna mutafarriqayn bu ñuy jël zakat e waay bu leen boole lu teqali ko wala yufarraq bayna al mujtami mujtamiin xasiyata sadaqa wala di di di teqale la booloo woon ngir ragal zakat wa ma kaana min xaritayni fa innahuma yataraaja'aani baynahuma bi sawiya waaye bu dee ay nit dañoo bokk ay gàtt dañuy delloonte ca la nga xamee ni nii mooy lu yemoo masalan tey jii waa ji am na fanweeri xar kii am ñeen fukk kii am fukki xar kese ñu dajale xar yi ñu ñëw jël ci benn gàtt gàtt bi bu dee quarante mille lay jar dañ naan hey yow borom fukki xar yi dellool waa ji dix mille ñu nga noonu su dee na ca fanweeri xar yi waa ji lañ ko jël su dee na ci borom fukki xar yi lañ jël gàtt bi ñu ne hey yow borom fanweeri xar yi joxal waa ji trente mille mi ngi noonu noonu la ñuy delloonte ci wàllu zakat boobee juróomeel bi mooy laa tuqbalu fi zakati saxlatul ghanam ay saxiira la nga xam ne mooy zakat kenn du ca jël ay mbote wala al ajajil fi baqar kenn du ca jël ay sëll yu ndaw wala al faslaani min al ibil kenn du ca jëlit la nga xam ne mooy giléem yi nga xam ne nii ay giléem yu ndaw lañu walakinaha tuxsabu ala ashaabiha donte ne bu ñuy wàññi xar ya wala nag ya wala giléem ya daañ ko wàññiwaale waaye bu ñu jël zakat duñ ko ca jël li qawli omar radiallahu anhu li aamilihi mi ngi noonu idda alayhim saxla wala taaxuduha soo demee di jël ay zakat lépp lu fa ay mbote konte waa leel ko waaye nag kenn du jël mbote ca la nga xam ne mooy zakat lu waral loolu it lim lay wax ci kanam mooy kenn du jël xar yi gën a baax wala giléem yi gën a baax wala nag yi gën a baax ci zakat da nga noonu juróom-benneel bi mooy laa tuxaz fi zakati hërma wala mayiba ayban yanqusu qaymatahu la nga xamee ne ni mooy jur gu màgget ga jur gu am ayib boo xam ne nii day wàññi la nga xamee ne ni mooy valeur am loolee kenn du ko jël ci zakat li qawli abi bakar radiallahu anhu wala tuuxazu fi sadaqati haramatun wala zaatu awaarin wala taysun mu ne su ngeen demee di jël zakat bu leen jël yu màgget ya bu leen jël yu patt ya bu leen jël tef yu ndaw ya mi ngi noonu kama la tuqazu karaim al amwal waaye naka noonu kenn du jël la gën a tedd ca alal ja kalmaxa kalmaxid wa hiya alxaamilu tuqaaribu alwilaada giléem yi nga xam ne dañoo ëmb ba diis kenn du ko jël ci zakat wa kal fahl la nga xam ne mooy kóoyal gétt la na doon nakk yàlla wala giléem ya wala xar yàlla nga xam ne mooy ya ci gën a mag di tëb yooyu kenn du leen jël wa shaatun tusmanu lil akl ya nga xam ne dañ leen a ber di leen yafal ngir lekk leen ca gàtt ya kenn du ko jël mi ngi noonu wa ruba lati turabbi wala duha xar may doog a wasin di nampal doomam kenn du ko jël li qawli muaz li qawlihi sallallahu alayhi wasallam li muaz iyyaka wa karaima amwalihim ay muaz boo demee bay jël zakat moytul jël la gën a tedd ca seen alal ya wali nahyi omar radiallahu anhu al mutasaddiq bi aqzil akula walruba walmaaxid wa fahlil ganam omar doon na tere ña doon dajale zakat ñu moytu yañ ber di leen yafar pour lekk leen ya nga xam ne day nàmpal ya nga xam ne dañoo ëmb ba diis ak ya nga xam ne ñoom ñooy tëb la nga xam ne ci gétt ga lu mel noonu lañ ko moytu kon mbokk loolu moom mooy la nga xamee ne nii mooy zakatu ak jur mu nekk suñu diiney boroom ñu war koo jàng war koo xam mi ngi noonu même bu dee ni la ëpp ci ñun amuñu la nga xamee ne nii moom mooy jur googee ak gàtt yooyu te fa lillahi alhamdu suñu boroom wuutal nañu yeneen am-am yu ko ëpp valeur ndax bu njëkk xam ngi nit ñi daanaka ci jur gañ daan yar rek ci lañ doon sukkandikoo ak lañ daan jëlee ca tool ya. waaye firila alhamdu suñu borom yàlla ubbil nañu àdduna léegi doomu aadama yi ñu ngi tedd teraanga yu gën a yaatu fekk dañuy soxla woo di yar ay xarak yi ay ay ay ay ay ay béy donte ne ba tey am na ñu koy def almuhim loolu moo aju ci loolu koo xam ne am noon na ci xëy na laaj bu jëm ci wàllu yar ay jur bala ñoo dugg ci la nga xam ne moom mooy kii bi incha allah naam waaleykum salaam dañuy waaw ñoo xam ne dañoo ànd boole seeni nag yow nga wax leen ni nañ génne nag yi ñoom ñu bañ loolee day wax dëgg yàlla ay jullit waruñu ko def ala kulli xaal mbir bi mi ngi dépendre yow ndax la nga ca am ci ay nag dana doon loo xam ni lu war a génn zakat la masalan am nga fa fanweeri nag te ñoom bañ nañoo génn zakat su boobaa yow da ngaa war a génne zakatu nag yooyee la nga ca am même bu matul fanweeri nag te ñoom boo ko yi ñoom ñoo bokk nag yi fa ñuy deme fa ñuy dikke fa ñuy fanaane comme ni ñu ko waxee su boobaa yéen nga xool bu ñu doon génne zakat bi yow lan moo ci sa waru gar su boobaa yow loolee nga génne ko jox ko fuqaraaw yi masalan bu doon te dañ cee war a jël la nga xam ne mooy benn nag nag bi bu ñu ko jaayoon dana mat deux cent mille yow ñoo xool ni nag yakat taux bi nga ci am temps la su doon da ngay delloo nit ñi cinquante mille nga leen di delloo yow nga jël sa cinquante mille joxe ko bu boobaa ñoom sa jaan dana wàcc ca loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ka nga xamee ne waaw su boobaa ka nga xamee ne nii moom mooy jël zakat bi bu góor ba la ñuy jël moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan tabiya mooy nag bu góor moom la ñuy jël lu dul amul ñu jël nag bu jigéen nga xam ngeen ne nag bu bu jigéen mu ëpp valeur ci wàllu ñiy sàmm que nag bu góor ba su ko defee su boobaa moom zakat bi góor yi la ñuy jël suñu amul góor la ñuy doog a dem ca jël ca jigéen ña ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam léeg-léeg it mu am la nga xam ne mooy ak dellonte mooy waa ji waroon naa génne nag boo xam ne nii un an la war a am waaye amul ci gétt gi nag yi fi nekk yépp ay kuy yu mag la ay yëkk yu mag la su boobaa dañuy xool yëkk bu mag ñaata la war a jar masalan ñu ne yëkk bi dana jar trois cent mille ah sëll bi ki ko doon jaay ñaata lay jar ñu ne cent mille kay jël zakat moom mooy jël su boobaa deux cent mille dolli borom nag ya bu dee contraire ba waa ji ay sëll rek la yor amul nag bu bu mag mais ya nga xam ne nii ñoo ca nekk yu ndaw la yoo xam ne nii yeggaguñu su boobaa it dañuy xool différence ba nekk ca ñaari nag yooyee mu jox ko ka nga xam ne mooy borom zakat yi wante ne loolu mi ngi gën a feeñ ci gileem ya mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli ala kulli xaal kon ñu jël bind bi ci topp mooy li ñuy tuddee ak samar mooy zakat ci wàllu meññeent yi wal xabuub ak ak ci pepp yi chartul xabb wa samar an yazhuwa samar yasfara aw yaxmar mooy zakat bala ñu ko génne ci pepp ya ak meññeent ya day dem ba ñor ñu gis ko mu jaune ca la nga xam ne jaune mooy wane ne feeñ ñor na wala xonq suñu demee ba gis ni bu xonqee lii mooy ak ñorom wa an yufraqa al xabb wa an mooy la nga xam ne it mooy pepp ya dem ba dëgër ca la nga xam ne mooy dugub jaag ñebbe ya ba nga xamee ne boo ko jëloon mu mën a génne farine wa anin yatibal inab wa zaytun ñu demit ba raisin ya doon loo xam ne tey nañ moo olivier ñu mën koo lekk su boobaa la ñuy dooga nag jël la nga xam ne mooy zakat ndax suñu borom mu ne li qawlihi taala wa aatu xaqahu yawma xasaadihi bala ñoo jël àq ci zakat bi mooy bis ba nga xam ne ñor na ba ñu war koo góob bis boobee su boobaa la ñuy génne zakatam waaye avant loolu zakat waru ca wa nisaabuha xamsatu aw suq la nga xamee ne nii moom la ñuy génne zakat mooy juróomu wisq te mooy sittuuna saa wa saau arbaatu amdaad la nga xam ne mooy juróomi wisq te loolu mooy ñu jëloon li nga xam ne mooy sa saa ci lislaam mooy nit ku diggu doomu ñu solal ko ay loxoom ba mu fees loolu la ñuy tudde mudd mu sotti ñu def ko ñeenti yoon loolu mooy saa borom xam-xam yi ci dem ci ixtilaaf donte ne mi ngi tourné autour de deux kilos ñu naan deux kilos deux kilos cinq cent ila axiri ala kulli xaal loolu mooy saa saa boobu nag boo ci amee soixante loolu moom mooy benn wisq soo ci amee cinq mooy xams aw suq loolu mooy lan kon à peu près entre six cent à six cent sept cent kilos ca natt ba gën a kawe ki nga xam ne nii am peppam yegg na foofu dañ naan ko yow war ngaa génne ci lii zakat mi ngi noonu bu dee ne nag wal waajib fiha in kaana tusqa bila kulfa bu dee ne moom kat la nga xamee ne ni mooy tool ba ña ngi koy nandal ci loo xam ne coono amu ci bi an kaanat asriya mu doon garab yoo xam ne ñoom seen reen rek la ñuy jële ndox di meññ aw tusqa bi maa il uyun wala ñu koy nàndale ca la nga xam ne nii moom mooy ndoxu dex yi nga xam ne day day wal wal anhaar ak dex ya su boobaa da ngay gis ne la cay war mooy al ushur mi ngi noonu la cay war mooy al ushur bépp tool boo xam ne asamaan a koy tawal wala ak dex moo fa jaar wala ci bëtu ndox la nekk yow daal amul coono boo cay def da ngay jël fukkeel bu moom ngay génne fa fi xamsati aw suq nisful was wisq su boobaa ki amoon juróom juróomi aw saq masalan bu doon six cent kilos ñu ne ko su boobaa yow da ngay génne genn wàllu wisq mi ngi noonu muy la nga xamee ne nii moom mooy soixante kilos ya wa in kaana tusqa bil kulfa bi an tusqa bi dalaa'i wa sawaa'i wa sawaani su dee ne nag waa ji toolam ba day coono la koy arrosé moom mooy root ci ay baak ca sayaan ya ñëw di sotti wa nahwiha fa fiha nisul ushr bépp tool boo xam ne borom moo koy arrosé su boobaa da ngay gis ne genn wàllu dixième ba lay jël fa fii xamsati aw suq rub au wisq ka nga am xam ne am na juróom fukki juróomi wasq mooy six cent kilos au lieu mu génnee soixante kilos comme kee nga xam ne asamaan moo koy tawal moom dañ naan ko soixante kilos yi xaaj ko ci digg bi kon trente kilos lay génnee mi ngi noonu ndax coono ba nga xam ne daj na ko ci wa ma zaada fa bi xisaabihi qalla aw kasura lu dollee ko ci loolu it noonu lañ koy toppee na doon dafa néew wala mu bari ca mu safaanu jur gi ñu doon jàng sànq wax nañ jur gi ki am ñeen fukki xar ba ba téeméer téeméer ak ñaar fukk benn xar rek lay génne waaye tey bu doon peppa ñu ne ki am 600 kilos day génne. soixante kilos ah bu amee cent vingt kilos nag ah mu ngi noonu bu amee mille deux cent kilos nag dañ naan ko kon da ngay génne cent vingt kilos ila axiri mooy lépp da koy génneel yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax moo ne fii ma saqati sama wal uyun aw kaana asriyan al ushru wa fii ma suqiya bin nadhi nisfu al ushru rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne lépp loo xam ne asmaan moo ko arrosé lépp loo xam ne bëti ndox yaa fa jaar lépp luy naande ci ay reenam nañ génne fukkeelam lépp loo xam ne dañ koy arrosé ak loxo nag moom nañ génne genn wàllu fukkeelam loolu mbokk mooy la nga xam ne nii moo aju ca wàllu zakatu mbay lii nag moom bu dee waa Ndakaaru bari lañ ko it àll bi moom bari le nañ ko lool mi nga noonu àll bi bari nañ ko lool ca mooy tool yi nga xam ne dañ koy war a génneel zakat muy wax fii nag ne dana indi juróom lenn ci ay fukk ci ay leeral leeral gu jëkk bi man kaana yasqi zar'ahu marratan bil aala wa marratan biduniha al waajib al waajib alayhi salaasu arba'il ushur mu ne koo xam ne nii nag tool bi léeg-léeg asamaan moo koy arrosé léeg-léeg yow yaay rod di arrosé ñu ne ah su boobaa yow da ngay génne trois quarts mi ngi noonu fukkeel ba masalan asamaan moo koy arrosé amoon nga six cent kilos da ngay génne soixante kilos yaa ko arrosel sa bopp da ngay génne ñaata trente kilos léeg-léeg asamaan arrosé léeg-léeg nga gén yow nga arrosé ah kon su boobaa dañ naan da ngay génne quarante cinq kilos mi ngi noonu hakaza qaala ahlul ilm wa qaala al alaama ibnu quddaama la naalamu fihi xilaafan naam borom xam-xam loolu la ñu wax doonte ni ibnu quddaama ne loolu borom xam-xam am ñu ci juyoo te may kon zakat ñetti façon génneel la li asamaan di tawal fukkeel ba la ngay arrosel sa bopp ñaar fukkeel ba la ngay arrosé lay lekk ëllëg asamaan tawal ko fukk ak juróom ba la mi ngi noonu ñaareel ba mooy tujmau anwaau samar ila baadiha fa in balagat nisaaban zukiyat min wasatiha mu ne meñ tijma anwa u tamr mooy des na dajale melokaanu tàndarma yi su matee nisaab ñu xool la gën a digg doomu ca la ñuy génne zakkaat ba xam ngeen tàndarma am na lu jege ëpp téeméeri façon tàndarma mi nga noonu fala yetaayyanu dafuha min al jayid wala min al raji kenn du jële zakkaat ba ci la gën a baax duñ ko jële ci la gën a doyadi ñetteelu leeral bi yujmau lqamhu wa shair wa sult fi zaka loolee nga xam ne nii dañ koy tuddee ay orgeeg ay formaag ay genre blayaag yooyu yëpp mu ne dañ koy boole moom la ñuy génnee la nga xam ne mooy benn façon zakat la fa in balaga majmuu nisaaban zukiya min xaalibihi soo dajalee pepp yooyu mu doon nisaab su boobaa dañuy xool la ci ëpp ñu génne ca loolu zakaatam ñeenteel bi tujmau anwaa alqataniya wa hiya alfawl wal xams wal adas ya nga xamee ne nii mooy genre ñebbe yi rek feeb yaag mi ngi noonu la nga xam ne mooy lanti yaag ak façon genre yi nga xam ne ni nii am nañu cay boole sax gerte ya mi ngi noonu ci la nga xamee ne nii dañ koy génne boole ko mu nekk zakat juróomeel ba mooy ida balaga kullin min azaytun aw xabbil fajr aw aw juljalaan la nga xamee ne ni mooy la ñuy génne ak jiw na doon façon yooyu lu mu safaanoo it ndax comme ni leen ko waxee rek genre pepp yi yëpp il fallait ñu tegala ko di la woon naan lii mooy lii lii mooy lii mais day jafe nga xam ko lu ci bëri day nekk ci dëkk arab yi fekk ñun duñ ko am mi ngi noonu kon yépp yoo xam ne dafa jege yoo mingoo dañ koy génneel zakka juróomeel bi mooy tujmau anwaul inab ila baadiha fa ida balaga nisaaban zukiyat la ñu waxoon ci tàndarma yi la ñuy wax ci raisin raisin dafa bëri ay façon waaye yépp da nga koy boole su ma ci nisaab nga génne ko wa in buy at qabla an tasira zabiban uxrijat zakatu min samaniha su dee ne nag zabib mooy raisin bu ñu wowal suñu ko teelee jaay ci yëgul ci zabib kon dañuy jël njëgg la ñuy génne zakat wa hiya al ushru aw nisfu al ushru bi xasabi saqi mi ngi noonu imma mu doon fukkeel wala genn wàll ba juróom-ñaare bi mooy al urzu mooy ceeb ya mi ngi noonu wa zurra wa doxnu na doon blay yaag surgo yaag kullu waahidin minhuma sinfun mustaqil yooyu moom mu ne bokkul ku nekk dañuy xaar ba mu am nisaab ñu doog caa génne fala tujmau ila baadiha kenn du boole lenn la ca la ca des fa ida lam yablug sinfun minha nisaaban fala zakata fihi yooyee moom bépp bu ci matalul boppam nisaab kenn du ci génne zakat juróom-ñetteelu leeral bi man istajara ardan fa xarsuha fa xarasuha koo xam ne daal luy ab tool daa di bay tool ba fa balaga al aasiru nisaaban wajaba alayhi an yuzakkiyahu même bu dee da ngaa luye tool bi nga daa di kay bay nisaab génn ca du tey da nga koy génneel zakat dañuy wax mukk ne da nga koo luye kaza wa kaza juróom-ñeenteel bi man malaka samaran aw xabban bi ayi wajhin min aj aw awjihil mulk bi habbatin aw shiraa'in aw irs képp koo xam ne daa am ab tool na doon muy meññeent la ay pepp la wala ñu ngi noonu su dee ne mbir mi dañ la koo may wala nga jënd ko wala nga donn ko ba'da iswaa'ihi fala zakata alayhi fiihi su dee ne ba nga koy jënd dem na ba tool ba mat na sëkk su boobaa zakat du ca war iz zakatuhu ala waahibihi aw baa'ihi ndax ka nga xam ne moo waroon a génne zakat ba avant mu koy maye wala mu koy jaay mooy borom tool ba ca boppam walaw malakahu qabla istiwaa'ihi la wajaba alayhi zakatuhu boo dee ne nag bi ngay jël tool bi tool bu ñoragul zakat bi moom yow lay war yow mi nga xam ne yaa ko moom la nga xam ne moo ca mujj man kaana alayhi daynun istaghraqa jamia maalihi koo xam ne daa am bor yoo xam ne bu ñu xooloon tey dafay dafay ëmb mboolem la mu am ca tool ba ku mel noonu aw naqasahu wala day wàññi kamu mina nisaab ci nisaab ba fala zakata alayhi ku mel noonu zakat du ko war masalan waa ji 600 kilos la am 600 kilos lan lay war a jaar masalan ñu ne woon dana jaar masalan la nga xam ne nii moom mooy 60 mille masalan ci ci exemple te waa ji moom amoon na boru 60 mille ñu ne ko kon moom du génne zakat loolee moom la borom téere bi wax ñu xoolee it daanaka lu ëpp ci borom xam-xam loolu la ñu wax. waaye nag du ñëpp ba nga xamee ne nii lu bari ci borom xam-xam yi ñoom dañu ne zakat alal ji feeñ kenn du ca génne zakatu alal ji nëbbu mi ngi noonu ndax zakat dafa am ñetti wax yu mag yi ci am am na ñoo xam ne dañ ne bor moom kenn du ko xool ci zakat da ngaa yor da ngaa yoral da ngaa yor ay bor war ngaa génne zakat imma nga dem fay bor yi da nga fay bor yi mi ngi noonu da ngay fay bor yi li ci des matul zakat matul zakat parce que fay nga bor yi waaye fayoo bor yi téye ko ba pare ne doo génne zakat parce que da nga may bor parce que nit ki mën naa am 10 millions ci bor ba pare année bi ñëw moom déjà am na 10 millions mu ne ah xool naa am naa 10 millions rek denc naa ko ren ba déwén mais maa ngi ak 10 millions bor kon du ma génne zakat am ñoo xam ne dañ ne déedéet du tee da nga koy génne zakat am na ñoo xam ne ñoom dañ ne déedéet tant que da ngaa am ay bor ca bor yi xaalis la lii nga yor dafa méngoog bor bi kon doo génne zakat bu deen boo fayee bor bi lay des du ma zakat doo génne zakat mu am na ca nag loo xamee ne nii loo xaw a xel li xel gën a nangu moo ëpp tegtal ca mooy bu dee xaalis ak xaalis daan ca xool ay bor waaye ku yor ak juróom kenn du ci xool bor ki yor tool kenn du ci xool bor ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daal yónni nañu ñu dem dajale zakat ci amul benn texte bu ñu mën a gis yonent bi ne bu ngeen demee di jël zakat laaj leen waa ji ndax am na bor wala amul bor waa ji day ñëw compter xar yi génne zakat ñu def tool bi natt la ko génne zakat daawuñu laaj waa ji ndax da ngaa am bor amoo bor kon loolu da ngay gis ne daanaka mooy li xaw a gën a not ca mooy daal ay bor moom kenn du ko xool ci zakatu jur kenn du ko xool ci zakatu meññeent mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain da yox yonent bi da doon woor ashhurul hurum da doon woor weer yi ñu war maal mooy da ca daan woor mais daaw ko tegale di ko woor dafa bariwul lu mu ci woor nuñ koy déggee nag weeru rajab amul luñ ko jagleel naam amul luñ ko jagleel loolu jagleel luñ ko weeru rajab dañ koo jagleel ashhurul hurum yaa ngi dégg ngi mel ne li suñu borom di wax naan fala tazlimu fihinna anfusakum mooy ci weer yi ñu warmaal la kon loolu dafa valable ci mboolem weer yi ñu warmaal du jagle guñ jagleel weeru rajab loolu moo tax borom xam-xam yi naan jaamu yàlla goo xam ne rajab rek lañ ko jagleel nga xam ne boo ko defee ci rajab bi day ëpp nga def ko ci yeneeni weer loolee amut mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam wala kulli xaal kon mbokk insha allah ñu doyloo loolu yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ña nga xam ne dañuy génne zakat nangul ñu koy def te barkeelal leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain